بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نيجي سنت بروم تبارك وتعالى دنيان يلا جمك خير ولك مج يلا دوتيك وجسونو سنغبا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مولولوي نيجي لين دي نيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw loolu mbokk ngi nii moo xam ne dafay laaj mu ne euh, toujours dafay bëgg di def istixaara maam bu amee mbir moo xamante ne moo ko yitteel day bëgg di def istixaara mu ne nag dafa am ñoo xam ne dañ koy wax ne dangay dem ci diw sàngam mu istixaaral la bu noppee mu wax la ne lu mu gis ngir nga dugg ca mbir ma wala nga dellu gannaaw mu ne ndax eh, istixaara noonu la saxe ci sunna tukkee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ngir tontu loolu dañ koy wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko ndongaam la abdullah ibn mas'ud radiallahu taala anhu waxe nee daf leen daan jàngal istixaara istixaara nag mooy nit ki buy bëgg a dugg ci mbir wala mu bëgg a génn ci mbir wala mu bëgg def wala mu bëgg a bàyyi mbir moo xam ne mu ko yitteel la mu tànnaloo borom bi tabaraka wa taala sàkku ci yàlla mu tànnal ko li gën ca loola mu am wala mu bañ a am mu def wala mu bañ a def yonent bi sallallahu alayhi wa abdoulahi masaoud neena da leen daan jàngale istixaara googu comme nim leen daan jàngale awsaar ci alquran bi maanaa yitte ju mu joxoon loolee di leen ko jàngal di leen ko faram fàcceel waaye di leen sax baat ya ñuy wax bu ñuy def loola nee na yonent bi nee na <clears throat> képp ci yéen koo xam ne am na mbir mu ko yitteel nañ julli ñaari raka yoo xam ne du farata maanaam nit ki jàpp julli ñaari rakka yoo xam ne naafila lay doon du farata amul heure bu ñu sàkko pour jot di ko ca def waaye na doon waxtu woo xamante ne eh, kenn terewu ca naafila loolu mooy li bu jullee ñaare rakka yi ba noppi <coughs> yonent nee na ginnaaw gi lay ñaan ñaan gi ñuy bëgg a tudd mu ne allahumma inni astaxiruka bi ilmika yow yàlla maa ngi lay maa ngi sàkku ci yow nga tànnal ma ci sa xam-xam wa astaqdiruka bi qudratik yow yàlla maa ngi sàkku ci yow kàttan ci sa kàttan gi wa asaluka min fadlika al yow yàlla maa ngi lay ñaan ci sa ngëneel lu màgg li fa innaka taqdiru wala aqdiru yow yàlla yow de ku am kàttan nga man nga lépp man nag mënuma dara dama lot wa taalamu wala aalamu yow yàlla yow yaay ki xam man de xawma dara ma ndax lii may bëgg a dugg wala lii may bëgg a génn lan moo ci gën ci man lan moo ci ëpp ak mujj yow yàlla yow rek yaa ko xam wa anta allaamul xuyuub ndax yow yaay ki nga xam ne yaa dañ kumpa yow maanaam dara wump la yow yaay ki xam li fàddu allahumma yow yàlla fa in kunta taalamu bu fekkente ne xam nga ni an haada al ne mbir mii may bëgg a dugg wala may bëgg a may bëgg a def wala may bëgg a bàyyi foofa la koy tudde nag xayran lii fii aajili amri wa aajili moo gën ci sama tey moo gën ci sama ëllëg faqdurhu lii yàlla nag ma ko dogalal am na feneen foo xam ne danay wax naan xay xayran lii bu fekkee ne xam nga ni moo gën fii diini ci sama diine wa maashi ak sama dund wa aaqibati amri ak sama muj bu boobaa faqdurhu lii yàlla nag ma ko dogalal wa yassirhu alayya yal na nga ko yombal ci manit wa barik fii yal na ko barkeelit fa in kunta taalamu bu fekkente ne nag xam nga ni annahu ne mbir mi may bëgg a dugg wala may bëgg a génn charran lii charrun lii aw ay la fii diini ci sama diine wa maashi ak ci sama dund wa aqibati amri ak sama mujj bu boobaa fasrif nii anhu ma fekk ba mbir moomu ma génn ca wasrifuhu an nii yàlla na nga fekk mbir moom it ba bu mu am ba bu mu dal ci sama kaw waqdur lil xayra xaytu kaan waaye nag yàlla nag ma dogalal aw yiw fu mu mën ne summa raddini bihi waaye loolee nga xam ne moo gën man nga dogalal ma ko yàlla na nga ko def sama xol gërëm ko loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la jàngalee istixaara booy tànnloo yàlla mbir mooy mën a dugg mu mën a doon wala ngay bëgg caa génn loolu nag boo ko waxee tekkiwul ne da ngay gis dara tekkiwul ne da gis dara ci gént wala nga gis ko boo nelawul waaye boo ko waxee ginnaaw bi nga jullee ñaari rakka ba pare xamal ne borom bi tabaraka wa taala dana la tànnal di gën bu dee mbir moomaa gën dana am yomb ci yow bu dee gënul borom bi tabaraka wa taala dana la ko fegal ngàllankoor ko ba du am kon lii mooy istixaara li ciy sunna nag mooy nit ki defal ko boppam comme ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan jàngale ay saabaam bu doon dees koy defalee kon ay saabaam moom dana leen ko defal waaye nag da leen ko daan jàngal ku ne defal ko sa bopp ndax ku ne mën na ko kenn tëlewu ko waaye képp koo xamante ne gis nga ni muy ñëw naan la man damay defalee istixaara wala ñu naan la demal ci diw mu defal la istixaara xamal ne ko wàcc na yoon wa lu noonu ku ñëw ci moom te mu xam ko dala ko war a jàngal nii ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee bu ko defee nit ku ne dem defal ko boppam ndax ñëpp ko mën waaye koo xamante ne wuute na ak sunna ba dem ba di ko defale tecca di ñëw naan la gis naa nangam ak nangam naan la wala mu ne la defal lii wala bàyyil le xamal ne kooka gisaane kat la wàcc na yoonu sunna ca defale gam koy defale waaye wàcc na sunna ca nam koy defe waaye wàcc na sunna gannaaw ba mu ko defee ba noppi muy gisaane naan la gis naa nangam wala gis naa nangam wala boo ci duggee da nga am nangam ak nangam kon dal istixaara ci gàttal nii lañ koy defee nii la ko yonent bi jàngalee yal nañu borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq defal leen ko wallahu aalam